li ñuy gis comportement président Idrissa Seck comportement Khalifa san ak comportement Mamour Diop Decroix ak ñeneen ku lim juum bu ñu waxee ba pare ñeen reeroo seen biir xàqtaay seen biir je crois que loolu la sénégalais di xaar ci yéen. xaar ñu si yéen ngeen jàppee seen bopp ay ennemis mais ay adversaires et image boobu militants yi ngeen am da ngeen leen ko war a inculquer de sorte que militants yi itam bu ñu dajee. te loolu ñuy rayante ñuy saafanto